muy noonu euh, sànq déglu nga wala bokk du ñàkk jot nga ci information bi nga xam ne Barthélémy jaar sànq mu ngi génn di gis ne euh, dafa mel ni dañu ko tënk du mën a def caravane ci fi nga xam fa la ko bëggoon def parce que Ousmane Sonko moo war a def caravane euh, côté Grand Yoff mu jàpp ne loolu c'est injuste nooy jàngatee loolu docteur. Ousmane Sonko bàyyam la nag. mais bu dee ci réew droit la ñu nekk. war na ma ne ci réew droit la ñu nekk. Ousmane Sonko, en dehors d'être le candidat, c'est le chef du gouvernement. Ousmane Sonko, c'est une institution de la République. L'État doit veiller à sa sécurité, à sa protection. Keroog, vous vous rappelez, il y a Malick Gakou qui a été agressé. Hmm. Ça aurait été Ousmane Sonko à la place. Le bras cassé d'un premier ministre, chef de gouvernement. Point d'interrogation. vous me direz et le monde entier dirait que le Sénégal est en étape faible léegi vous voulez qu'à cause d'un xaju balcon que le monde entier dénigre les forces armées sénégalaises ou la justice sénégalaise à cause d'un xaju balcon et ce xaju balcon là il est qui il est quoi le maire de il est maire de Dakar en raison de quoi et à cause de qui Nul n'était ce Sonko-là qui a pointé du doigt. Faites de lui un maire. Il ne serait jamais maire. Jamais. Lui-même, il le Et ce Khadj Balcon qui joue les impolis là, il est plus impoli que, que qui Parce qu'il n'est pas sénégalais d'origine. ana ay maamam dégg naa baayam di naan mel ni sa maam nous nos maam là suñu grands-parents yi on les connaît guerriers on les connaît dans les conquêtes et résistances au Sénégal ses membres, ses grands-parents n'en figurent pas. Même son père n'en figure pas. D'accord. Son père fut un ministre. Qu'est-ce qu'il a foutu de bon Fumutok. Parce qu'il y a les Portugais de Dakar qui le suivent. Nous, on est fils de Sénégalais. Eux, fils de Sénégalais. D'ancêtres encore Sénégalais. fu ñu jóge mais c'est un sénégalais moom aussi. ah ci croix. ah ci lim ñu wan. c'est un Cap-Verdien. Barthélémy Diaz. si tu vois l'impolitesse que ce xaju balcon fait là c'est parce qu'il s'en fout de ce pays il a un autre pays abri qui sert d'abri il s'en fout de, de de de mettre ce pays en en sang et en feu il s'en fout il n'est pas sénégalais à 100 pour cent bokk il n'est pas sénégalais de premier degré comme moi comme toi. au moins moi ce sont mes grands-parents qui ñoom ñoo samp Kanel au moins man mun naa ne Kanel samay maam ñoo ko samp ñoom seen maam sampul sax kër Dakar ils n'ont que 150 mètres carrés à Baobab point kenn topp ko ku dul ñi muy may ceeb tuuti kilo ceeb Il n'est pas de taille à se mesurer à Sonko. Il le sait. Il le sait très bien. Sonko est un élu de Dieu. dégg naa léeg-léeg benn vidéo xaju balkon bi naan xaw ma Sonko veut sacrifier xaw ma lan cadavre. sept personnes sept cadavres. n'importe quoi moom moo xam sacrifice. Sonko est un musulman. musulman xamul sacrifice lu dul mouton de tabaski. et les épouses de Sonko je vous rappelle. lorsqu'il était mm. en prison. ont témoigné que Sonko ne peut même pas égorger son mouton de Tabaski. Sonko dafa am islam Sonko am iman Sonko am ihsan Sonko am sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Sonko am alquran c'est le seul qui fait des discours qui nous relat des hadiths et des versets coraniques c'est de ce Sonko qu'on besoin c'est de ce politicien qu'on besoin moom lu mu ñuy jàngal lu dul ay saaga et il se contredit en disant que ay lawbe ñoo ko ñoo ko yar moo tax du saaga du tontu saaga il a oublié qu'il insulté publiquement les gens de Tambacounda xanaa boobu du law bi yaruñ ko woon xaw ma labbe yi. parce que dañ ko attaqué sonal ko. ah bon mu génn en tant que autorité bu ñu lay bu dee da nga am yar bu baax bu ñu la attaqué foofu nga war a wane sa sang-froid d'où la nécessité d'une bonne éducation ceinture noire boo ko tooñee du du du fipp da lay seetaan di la xool. pourtant Ousmane Sonko avait incité. ses militants ne leen Barth dootul defati campagne fii parce que lii ak lii. dégguma est-ce que du benn Ousmane Sonko taxaw na Rufisque ne comme attaqué nañ samay ñooñ Barthélémy Dias waratul def campagne. lan moo tabax islam lan moo tabax islam. l'islam xeex moo ko tax a tax. voilà direct est-ce nañ tooñ. voilà. dañ koy tooñ rek mu. voilà. lu lislaam wax ci ku rey nit. dañ laa ku jam paaka. ñu jam la ni ba niveau boobu. la vengeance même Dieu est muntagimu. Dieu lui-même il est vengeur il se venge c'est un muntagimu. Dieu lui-même il est mumit c'est un tueur. Dieu lui-même il est muhliku kuy alak. Dieu lui-même il est muzillu kuy toroxalaat. parce que c'est xam nga baax astafurlah bëgguma sax tudd tur boobu xaju balcon dafa xamul ne bu sacrifice naree am y a des microbes des parasites comme moi qui peuvent détruire ci benn miim rek ñeenti tuur yi ma la wax mu miitu mu waxliku mu zillu muntakimu ñeenti miim yi rek mun nañ ci dugal tuuram def ko lu ñu neex mais un musulman n'a pas ce temps ñun xamuñu loolu xamuñu lu bon musulman xamul lu bon musulman xamul lu bon on n'est pas des féticheurs képp kuy fétiche sax génn nga l'islam ñoom xamuñu loolu ñoom xamuñ ne ce qu'on appelle féticheur là c'est pas des islamistes képp kuy fétiche marabout et féticheur bokkut marabout c'est quelqu'un qui nous fait rappeler Dieu qui nous amène à connaître le prophète Mohammed sallallahu notation boobu ñuy joxe marabout ak marabout actuel bokkut dëggoo ma lay naan man marabouti maraboutage laa doon def ma xëy benn jour ma sànni ko ma xam ne ay fen la nit di la fay million nga koy ñaanal pour lan on dirait que tu es fay ma ma ñaanal la on dirait que man je suis sûr que ñaan bi dina nangu alors que je suis qu'un simple serviteur ah ñun xamuñu lu bon Sonko musallami xamul sacrifice moom moo xam lu bon moo xam franc-maçonnerie moo xam Rose Croix parce que au moins moom du ne ashhadu laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah génne benn verset mënul réciter benn verset du Coran et nous en tant que musulmans on sait que képp koo xam ne alquran xajul sa bopp mbaam nga. loolay dëgg alquran du xaj bopp xaj. ulaika kalan aami bal humu adal ulaika humul ghafiluun ils ne sont ni moins ni plus que des troupeaux. waay. mais y en des gens aussi yoo xam ne ñu ngi porté alxuraan seen bopp. dëgguma ma ne am na ñoo xam ne ñu ngi al ak alxuraan ci seen bopp. mais yàlla tam wax na ak ñoom. loolu aussi am na ci ba léegi ñooñu tamit ci ulaayika kalan ami bal humu odol la ñu bokk. sax pas plus que sabba boobu ñuy jàng juma. da ngay dëgg yàlla fu muy naan ils ne des gens qui des livres. nag c'est musulman pratiquant. man bi ma nekkee musulman pratiquant laa bàyyi maraboutage y a des jullikat fii au Sénégal mais jullit yombu fi loolu kay yàgg naa ko wax. jullit quatre vingt pour cent ñii di julli ñëpp duñu ay jullit. Ah. ay jullikat lañu. Ah. parce que jullit du fen. Ah. jullit du saaga. Mm-hmm. jullit du wax lu ñaaw jullit du jow. Mm-hmm. wax ma fii kan moo dul jow kan moo dul fen. jullit du lekk lu lewut. te ñii ma ñëwaat encore ci mara maraboutage ñii di naan ay sëriñ lañu dañuy lekk xaalisu seet xaalis seet daa aram te boo lekkee dërëm bu lewul nga nga sol ci yére boo julee yàlla du nangu. je par là Sonko c'est un saint. donc moom du billahi mun naa waat que Sonko c'est un man Sonko moom ma gën a set ci yàlla man xam naa loolu. parce que dans le pays de Dieu ku fa nekk ku àgg ci pays bi xam nga ko. donc yow gis nga ko foofu. non Sonko si man dinaa bëgg Sonko ngir lan Sonko qu'est-ce qu'il peut m'apporter. Sonko mënuma may fonction bu may jël. Sonko on lui paye loolu la wax. xaw ma 4 millions 300. man je gagne 4 millions par jour minimum. bon astafurlah parfois je gagne 3 millions parfois par jour. donc lu mu ñu koy fayee par weer man je le gagne par jour je le fais je le fais trente fois lan la ma mën a apporter ban fonction la mu mën a jox boo boo xam man boo xam ne dina ma jaral man ma yeewu 6 heures du matin ñu xool ban costume lay sol en plus j'ai un patron jamais de la vie je suis pas né pour avoir un patron man je suis pas né pour di xool bulletin de salaire jamais maa ngi ñaan yàlla bu loolu naree am yàlla maa faatu. sama wërsëg bu basé ci bulletin salaire yàlla naa dellu alaxira du ma kooku su ma naree liggéey sur les ordres de quelqu'un wala may liggéey di gis naaj yàlla naa faatu bés boobu